Asafa groupe aar mbay mi moo jël raw gàdd bi ñoom nag seenub xarañte ñu ngi ko wone ci ab dispositif bu bees bu ñu génnee bi nga xam ne liy taxawaayam mooy dàq ay picc ci biir tool yi. benn dispositif la boo xamante ne genre mën nañu genre bonhomme la xamante ne da koy teg sa tool amul nag du compliqué doo jël euh, internet doo utiliser leneen. daam benn bouton la buton on ak bouton off xamante da nga koy taal day am benn euh, ay son yoo xamante dina ko mën a émettre ba picc yi na leen mën a dàq euh, de manière efficace. jumtuwaay bu bees boobee nag nar a yombal liggéey producteurs yu bëri. na gis nañ ko suñu maam yi wala suñu parent yi dañuy. faral di dem seen culture bu ñoree dañuy dem si tool yi di dàkk picc yi te loolu gis nañ ko dafa metti lool. dina nekk lu bénéfique pour producteurs yëpp incha allah. ñii di waa ONG fair ginnaaw prime yi. fas yéene accompagner ndaw yile ba ñu mën a samp seen projet. ci anam yu mucc ayib. AIFR international dina leen. continuer di leen accompagner ngir que seen prototype boobu ñu mën koo eggale ba nga xamante ni seen découverte bu bees boobu wala seen xarañte bu bees boobu dinañ mën a jëriñ képp kuy baykat wala nga nekk sàmmkat fii ci Sénégal. compagnement bi ñuy xaarandi nag mu jege ci wàllum nguur gi nguur gi nga xam ne ñu ngi rafetlu bu baax taxawaayu ndaw yi nga xam ne seen mébét defa méngoog projet bi nga xam ne moom la ñuy wutu muy moom suñu bopp ci wàllum dundin. am ci mbégte lool ndax euh, projet yi ñu fi gis xam ne au départ c'était trois cent cinquante ñu koy segg ba mu des cinq projets. ay projet la yoo xam ni soo ko xoolee euh, maanaam mën na amal njëriñ agriculture mbay mi ci Sénégal taxawaay bi ñu ci war a am mooy accompagner leen accompagner leen déjà pour que projet yi génn projet yi génne aussi ñu jéem a xool nuñ ko mën a vulgariser nuñ ko mën a dugale ci mbay mi laata muy amal ay action ci wàllu wi nag nguur gi wane mébét bi nga xam ne am na ko muy sukkandiku ci ndaw yi ak seeni jumtuwaay ngir gën a ñoŋal secteur bii di mbay mi ak càmm